24 ans pour pour que le réew mi seul mën a jël pouvoir bi nii c'est inimaginable en réalité moment bi parce la il a fait tellement d'erreurs en cours de route bi mu demee duggee ci duggee ci euh, ci euh, pour la première fois bu mu duggoon ci ci Macky Sall y a beaucoup de ses ministres yoo xamante ni desoon nañ fa desoon nañ ci. bu mu ñëwaatee encore duggaat mooy bu mu bokkee Benno Bokk Yaakaar waaw bi mu bokkee Benno Bokk Yaakaar Omar Gueye ak kii Diouf donc ñu bëri même. Euh, celui Diouf de Bambey waaw du Diouf Diouf de Bambey. waaw donc ñooñu ñëpp. Pape Diouf Pape Diouf ñoom ñëpp desoon nañ ci par desoon nañ ci. ci affaire bi wala ci Benno Bokk Yaakaar. Mm. donc bu mu ñëwaatee encore. ñu jox ko. ministère deux ministères. deux ministères également jox ko conseil économique social environnemental. gis nañu ni ministère bu fa nekkoon ministère des sports amoon na foofu noonu tamit scandale. bu mu ñëwaatee également par rapport à ses erreurs sa rencontre avec Sonko et cetera donc dafa dem ba ci biir mu am bu ñàkk crédibilité en fait donc loolu moo tax tey jii nii pour mu mobiliser sax problème la il ne peut pas faire une caravane. pour cette élection là lu muy def mooy maanaam dem ci benn lieu ay proximité wala dem gis euh, benn couche euh, professionnelle les oh. pêcheurs <laughs> les trucs mu waxtaan ak ñoom mais du point de vue de la mobilisation sociale pour caravane topp ko c'est ça sera tout à fait un problème lu ñu mën a am boobu moytul ñu koy accompagner véhicules yi ñu koy accompagner ñoom ñooy gën a bëri sax mm. que nit ñi koy ñi koy accompagner donc euh, je pense qu'il a tellement fait de communication en voulant n'est-ce des va-et-vient parfois loolu moo tax il a il en a laissé ses primes loolu c'est extrêmement dangereux en politique boo gisee ni nii euh, ñeneen ñi reposition radicale bi nii am dina dynamique bi parce que ils ont été constants en certains moments Idrissa Seck bu nekkoon ci dynamique boobu noonu constance boobu noonu place bi Sonko am nii moom moo moom moo ci waroon nekk parce que il était euh, deuxième à l'élection présidentielle de 2019 ah, était ah, déjà également il y avait beaucoup de ci dans le monde il dit amoon na ay cadre dans le monde intellectuel monde universitaire et boo demoon ci université yi kasetu Idriss Seck nga doon dégg nga doon lu mooy maanam sa lettre sa fameuse lettre là et lui et moi voilà lui et moi il avait il faisait un bon discours boo xamante ni c'était captivant donc te te amoon na communication euh, politique mënoon na ko ay slogan lay créer et cetera et mais dañoo gis ne ni léegi les Sénégalais ne sont plus oui mais fi nekk nii tey seen rythme bu ñu ko maintenir nii nii nii mën nga cohérent mën nga constant mais aussi am na disque bi day day day mujj voilà amoon na ñu koy eh, eh. liggéey amoon na ay cadre ñu koy liggéey ci communication politique mais malheureusement ça n'a pas marché gis nga slogan bu bees bu ñu indi mooy pacte xaw ma mais kenn euh, euh, kenn topp ko parce que en fait il a perdu euh, sa crédibilité donc munoo nekk ak pouvoir pendant des années ñu dig la que da ngay dañ yow la ñuy def candidat finalement gis nga ni duñ la def candidat tu te retires nga ñoom même malgré di nga retiré wu tu n'as jamais été acerbe avec ce pouvoir là da nga garder sa n'est-ce pas euh, benn discours bu bu modéré donc euh, loolu moo tax ça a été contre-productif